jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf xale bi wax nga wax ju neex marhaban yaa xayra daa yi tey nag ñu ànd sunu président ànd ak koo xamante ni nii wax dëgg yàlla feemu mu ci turki wax dëgg yàlla moo fa njiitum réew bi Erdogan maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay maa ngi lay fay maa ngi lay fay fay bu neex wallaay kii ngeen gis ñu invité ni nii mooy Erdogan waaye li ñu neex wax dëgg yàlla démb wax dëgg yàlla diggante moom Macky Sall raxas ratax na ratax goo xamante ni nii wax dëgg yàlla xel dal na. Hmm, léegi fu ñu toll nii gis nañu léegi nga xamante ne mooy sunu stade bu bees bi mi ngi ci seen i loxo. léegi sunu aéroport bu bees bi nga xamante ni nii ñoom ñi ñoo ko yeggali. bëri na ci ay joueurs Sénégal yoo xam ne ay footballeur lañu léegi turki nañu jël. bëri na ci ay jeunesse ñi nga xamante ni mooy góor ñi ak jigéen ñi léegi yëre turki nañu sol. Erdogan waaw lu waral loolu. bu demee cëtuwul bu demee cëtuwul bu demee cëtuwul. jërëjëf jërëjëf kontaan ndax Sénégal dafa dem a taranga boo xam ne am na dëkk arab boo xam ne mu ngi wax arab kon ñun deful boobu. dëgg la Mauritanie deful boobu. Algérie deful boobu Tunisie deful boobu benn dëkk deful boobu yéen a yéen a nga naka def boobu. waaw ñun dañoo def boobu wallay kontaan naa wallay kontaan naa xool fees na xool fees na xool fees na. xam nga nga am sa dëkk yaa ko moom mhm. nga ne ma kaay nga jël lu la neex nga def mhm. nga jox ma suuf ma génn euh, faam président nangu ne pour ma jël faar bi. Mhm. ma yóbboo ne defar génne weñ pour fondement. pour fondement man damaa gagné marché boobu. dëgg la ñu ne déet ne waaye nga jox ko ma ne astat euh, cent cinquante milliards pour jeux olympiques. Euh, aéroport Diass man maa eggali. Mhm. maa yor Diass. loolu kenn waxatu ko. wallaay gis na taranga bi nga xam ne moom nga def euh, président Macky Sall moom la defal waaye ku sa wajju di raqaase doo set. nga ni. ma ne ku sa waju di raxas wallahi doo set. ah ku ci nga dégg wolof de. wallahi wallahi léegi nga dégg wolof de. te xam nga yéen a tubaab France moo leen jàngale français mooy chronologie. waaye gis nañ ñoom seen xol sax commencé na soxal. waaw loolu moom mënu cee ñàkk li tax mënu cee ñàkk ndax wax dëgg yàlla ñun ak ñoom la woon démb tey bu at na doxee ba nu ba nu jël lépp di ko teg sa loxo ah xel nag day bëgg a dal te birki démboo njaay ki nga xamante nii mooy sunu madame Faye Sall di suñu première dame. solo la yëre bu rafet nag. góor ko ñibbi waale. <laughs> nu dundee loolu moo neex man. Mhm. parce que ànd naa suma soxna. mu kalsum dara mu kalsum la ñoo ñoo ànd ñëw. Mhm. waaye madame Faye ànd na moom ak Sandaga. Sandaga euh, euh, Sandaga genn yóbbu na ko Sandaga. après moo wax ne dafa ànd ak moom dafa na Sandaga. Ah. Euh, dafa na dafa warta kene syndicat syndicat bono xoole ane Dakar ay Dakar ak yooyu yooyu yo lay joxone moom mu cuubu mu juub waaw joxone moom lu bari wax dëgg yàlla taranga bëri na dëgg la xam nga dëkk da nga da nga gis nga France dafa nëppi France dafa nëpp Sénégal France dana nëpp waaw léegi France bi ngeen war a bàyyi Sénégal na bàyyi lekk français na dem jàngi arabe ak anglais arab ak anglais xam nga lu tax arab ak anglais lu tax arab ak anglais adduna yëpp arab la wax anglais la wax uh-huh. kon lan moo tax yow bëgg a wax France France la France la France ah! la نحن أنا أعطانا كان بفاتة الولاكة متى بتنتا قرطة دزتا منك باغن تقرض قدد بدمن تبلك السنة أقرر jërëjëf wax dëgg yàlla wax na wax joo xamante ni nii kuy naar boo ko diggee sam xel dina dal na nag nga bokk ci waa Turquie mhm. ñoom na moom del nee na jàpp na Sénégal te dootu ko bàyyi mhm. ndax Sénégal ji na ko teraanga goo xamante ni nii wax dëgg yàlla defal ko moom defal ko soxnaam non seulement waa Sénégal ñoo bëgg Turquie loo ciy teg li ma teg mooy gis ne wax dëgg yàlla bëgg na dimbale Sénégalais ci bépp secteur secteur nee na secteur bu ne bëgg na ci dimbali Sénégal yi. def naa ne aéroport indi na sama xalet. Mhm. après dana leen ngemb nag bëgg dana ngemb Sénégal. ah da ngaa bëgg ngemb Sénégal. bu France commencé siis war a mu siisu. Mhm. ne Sénégal warul euh, topp euh, boo leen soxalee bomb euh, atom bi. Ah, ay waay loolu loolu loolu. est-ce que teel parce que ma ne ci fitna la dox. ah, ah déedéet ma ne ma ne doxalee leneen ci fitna la dox. ku baax du ñeexu suukar man ñeexu kaani gu set set le waaw d'accord yow yow ku la dégg rek xam na ne ku la ko ti mbax nga ri ko ko loolu kenn werante wu ko dama ni yow ku la dégg xam na ne sa kàddu ku la ko ti mbax nga ri mbax ko ko loolu xam nañ ko waaye ñun fii nu toll wax dëgg yàlla danoo soxla jàmm bilaay bëggunu xulloo bëggunu xeex amuñu kenn gis nga mhm. Sénégal dafa war a yeewu doo jële sa lépp nga jox ko France ah, ah, sa xaalis France moo garanti sa doom bu bëggee dem a France dafa fay visa turki ngi nii kon yow bayal xujj bajan ah, bayal turki kon bayal bayal xujj bajan mais turki ñëpp amul kenn amul amul sonnal nit amul sonnal nit yaa nga dugg turki rek nga def lu la neex amul sonnal sénégalais ma ne bëgg naa nit ku ñuul parce que nit ku ñuul nekk na loo xam ne cosaan la jërëjëf yow mu ne bëgg nit ko ñuul ba pare nga xeex ko. nga xeex ko France moom moom station essence. Eh, moom station France moom moom eh, eh, téléphone. téléphone. France moom moom ndox. France moom moom lu bëri France dugal na la ko. dafa mel ni léegi ñoom la li des Sénégal ñun ko. dëgg la dëgg la wax dëgg yàlla. loolu nga doon ñaanal yàlla nañu ko am yàlla nañu am liberté boo xamante ni nii fu nu neex daagu fu nu neex dugg fu nu neex génn. waaye lan ngay wax sa mbokku naar yi wallaay na tarkaan ne o naqa baana aylito kooka la lakk la ah da ngay lakk wartaynuuna azahar مثلا درنانا والكومنا وانت ربك الو ايه وين زين ما وفر السنغال والكنت بدل انت ولانا كوما آه. مالك المو ترلك المكس اللي ودرنا بقى لا ترك السنغال ولا لك المينا ñoo لك الباء لا لا لا wax na wax joo xamante ni nii képp kuy naar nekk turki ah sam xel war naa dal nee na ba mu ñëwee senegal defal nañ ko fi teraanga jàppale nañ ko fi sagal nañ ko fi jox nañ ko fi loo xamante ni nii ci réew mi pour muy jóge turki di ñëw Sénégal looy teg may wax dëgg yàlla ba gën a jàpp Sénégal ci bépp côté. dëgg la Turquie am na jigéen bu rafet. ah bu bëggee góor Sénégal bëgg jéberto naar. Mhm. ma ne mën a indi. Ah. ma ne mën na indi ma ne xam na. ma ne ah. ma parce que gis na jigéen góor Sénégal bëgg na xees. bëgg na lu ma ne gis na góor Sénégal avant ma ñëw man def na enquête ñu ne Sénégal ñoom bëgg na bu xees bu ñuul kay moo yokk a say waaye bu xees moom bëgg na. léegi nag comme que da nga bëgg bu xees te yaa ngi dafa xeesal. Mm-hmm. ma ne indi boo xam ne amul dafa xeesal. waaw yow boo indi ñi fi nekk ba duñu am problème. eh wala déedéet ma ne wax rek bëgg dimbale yëpp secteur bépp commerce. commerce sport. Mm-hmm. aéroport. Mm-hmm. politique armée guerre yëpp mën na dimbali ba bëgg a dimbali sax affaire jëkkër. wala wala mën na boobu mën na boobu. day day émer kon émergence ngi nii. wax dëgg yàlla le président doon wax. président bi wax dëgg yàlla fekk na ko ci. muy émerger moom daal secteur bu ñu ci ne. da ko ci bëgg wax dëgg yàlla moom ci wàllu boppam mu émerge ci. nañu bàyyi France. non non non non France day amul njëriñ. France lekk bi nekk na compliqué. lekk te boo xamee xamal leen loo xamul. muy est-ce que xam na yéex dafa ne nii sa napp yal na yéex est-ce que xam nga ne boo dee boo dekkee arabe nga wax. nga ni. boo deewee boo dekkee arabe ngay wax. man mii boo demee àllaaxira arab ngay làkk de soo fii nag boo demee foofu doo taxawaay lu ah, kon ne làkk arab waay kër baale waaw muslim yaa ne mm-hmm. laa ilaha illa allah na bëgg na Sénégal dugal na ko ci xolam te laa yumi diin moo teg muulaka bee. Ah, waa Mbuur gi la ko moom. Saliman taala turki Sénégal. Ah. wala bii man kaa. Oh. bum bum. anta waarikal Sénégal wallahi turki Sénégal Sénégal turki. nee na xalaatu caat na xalaat lii euh, nga xamante mooy Sénégal ak Turquie guerre di ci am muy pib pib googu nga ñu ni dégg wax dëgg yàlla jàmm la bëgg ci diggante fii nga xamante ne mooy Sénégal ak Turquie loo teg. turki Sénégal yàgg ah, am na yére bu tudd turki njaareem. wala ba. ah. man la kaara la. eh waay ndaw. anta wuli. kalmaala. eh waay allahu akbar allahu akbar allahu akbar wallaahi kalba ndeysaan nee naa li mu wax li mu wax leer na li mu wax leer na lii nga xamante ni ni mooy secteur yi secteur yi ah. ak secteur bu mu ci mën a doon ah. bëgg na ci dugal loxoom ah. bëgg na ci dugal loxoom bëgg fa ci boppam centre turki loo teg wala ah wala nee na lul wakala Irak Irak man wal baana mun naana kal Libya muslimina kal maa eh way ndaw anta baarakallah macha allah wakkal ولك البانك لا اله الا bilaa wax na dëgg bilaa wax na dëgg ndeysaan Erdogan waaw